asalaamaaleykum mbokki beaucoup de ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen sant bu baax si seen si télévision nationale di leen dalal si seen émission Covid 19 mbas mi tey Covid 19 mbas mi sunu gan gi professeur Elage Farika di néphrologue chef service néphrologie bu Dantec di nekk tamit président du conseil national du don et de la transplantation d'organes tey nag euh, teewaayam fii mooy euh, waxtaan ak askan wi euh, li ni Lam laamee fanny, yëpp ba Covid 19 bi fi si sunu réew ba léegi moo di que feebar bi day sonal bu baax ñi nga xamné dañu am euh, feebar roñon dinañu si dinañu si indil euh, leral lo bu si kaname incha allah mais bala lolu rek dañuy delu feulé ce ministère de la santé indi leen nga xamné moy point du jour euh, naka la tay tey feebar bi taxawé tay fi si sunu réew nu déglu si directeur de cabinet moy Aloïse Waly Diouf bu ministère de la santé. ma jangal len communiquer ministère de la santé et de l'action sociale si bésu tey du mercredi 8 avril 2020. ministère de la santé et de l'action sociale obtenu le résultat examen virologique de may a lim ci témer ak un ñetti test yi ñu def ñaar positif Manam, ñaari un contact yi a ak ñu yore doomu ak juróomi cas communautaire juróom-ñett si ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñi nga xam ne ñoo des ci hôpitaux yi ñu ngi am tànn ci bésu tey bi dalee ko ci kaa bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk am waññ nañu téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti cas téeméer ak fukk ak ñett ti kaa wër nañu ñaar ñu ñàkk seen bakken benn bu ñu évacué mu des téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti kaa ci suñu structure hospitalière yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmonteg digle yi nga xam ne moom lañuy joxle maa ngi leen di gërëm di leen waaw professeur euh, Farika ñu ngi lay euh, nuyu di la dalal bu baax si émission bi euh, di la wax nag tey naka nga gisee tey li nga xam ne mooy point du jour bi fële sa ministère. jërëjëf soxna Ramata maa ngi lay nuyu di di la remercier ci invitation bi à travers yow di remercier de ñuy liggéey et à travers ñoom toute la presse sénégalaise mm-hmm. parce que gis nañu taxawaay bi ngeen taxaw ci ci mbir je pense que am ngeen ci pàcc bu bu rëy te yéen a ngi koy vraiment yéen a ngi koy doxal donc encore une fois félicitations. ci chiffre yu muy gis tey li ma dégg ñaari njàngal lay def benn côté bi xaw na dal xel parce que ñuy wér ñaa ngi yokk loolu ñu ngi ciy remercier ñu ngi ciy féliciter personnel médical bi yëpp autorité dëkk bi en particulier autorité ministère bi taxawaay bi maintenant nag loolu nag il ne faut pas ni tubaab bi bu ñu nelaw suñu kaw lori. kaa yaa ngi continuer. surtout nag li ñuy wax cas yoo xam ne dañuy dañuy feebar kenn du xam lu leen wàll loolu nag war nañ ci bàyyi xel parce que loolu mooy indi musiba yi dëkk yi nga dégg ne am nañ problème yu bëree bëri ba fu mu nekk épidémie yi toll na foo xam ne mënatuñ ko contrôler loolu koy indi. Mhm. donc loolu il vraiment lu raam ci ñeg ba la jëm donc nag vraiment artu ko ci teel moo gën. te loolu nag vraiment li ñuy ñaax nit ñi nañ ko respecté il faut ku nekk ak foo nekk ak foo ak vraiment nga taxaw ci parce mhm. que. Euh, réew mi vraiment tey soxla nañ leneen am nañu yeneen projet développement il faut pas que feebar bi ñëw di di yàq lépp loolu nag ku nekk am nga ci waar boo xam ne war nga koo béy. dëgg la professeur El Hadj Farica lu bëggoon euh, du dugg ci waxtaan bi tuuti ndax euh, li la déjà néphrologue nga mais dañu bëggoon euh, tey li war a sa teewaay tey mooy feebar bi dañu wax ne ñu ngi koy wax laam-laamee si àdduna gi que dafa sonal ñi nga xam ne dañu am yenn feebar ñi nga xam ne dañu am par exemple feebar rognon ndax loolu am na. Euh, waaw jërëjëf loolu am na euh, am na euh, am na parce que feebar rein comme mooy maladie rénale chronique yëpp cest à soo ko amee day néewal sa sa sa doole day wàññi sa défense mu ngi mel ni rek réew moo xam ne amul armée bu dë bu am dëgër lay donc aussi soo amee feebar yooyu sa yaram du am dëgër laa yoo xam ne su la dara dalee doomu jàngoro nga mën koo xeex ni nga ko war a xeexee mm-hmm. moo tax feebar bi feebar tuuti tuuti dalay sonal moo tax feebar Covid bi di sonal ñi am maladie rénale maintenant nag am na ñaari façon mën nga am feebar rein Covid bi ñëw dal ci kawam mu yokk ko beneen façon bi mooy Covid yu grave yëpp lu ci gën a bari nga xam ne dañuy nécessité assistance respiratoire Covid bi ci boppam day indi feebar roño mm-hmm. donc en résumé Covid day indi feebar roño Covid su la fekkee feebar roño da koy yokk. Mm-hmm. et puis day et yokk ni muy lawee ci yaram bi di la indi sonal donc loolu moom lu am la. moo tax nag euh, ñi am feebar roño personne vulnérable lañ ko c'est comme ñu am diabète ñu am yeneen feebar chronique yi ñu am cancer donc moo tax ñu dañ leen war a taxaw ñaax leen et puis expliquer leen bu baax baax pour ñu mën a fagaru ci ci ci feebar bi feebar bi. yaa ngi wax léegi nag euh, mën na bu la fekkee nga am feebar roño mën na la gën a sonal te mën nga sax bañ am feebar bi nga ñëw am Covid bi mu ñëw indi la feebar roño naka la euh, doom jàngoro boobu. di la sonal ba ba la ba sonal la say xam nga feebar maanaam feebar bu ñu mel ni microbe bu koy indiwal ay virus comme feebar Covid loolu su duggee sa yaram bokkul sa yaram donc nu muy def sa yaram day jéem a défendre su yaram di défendre nag suy défendre day day euh, day indi day fabriqué yoo xam ne day jéem a rey euh, doomu jàngoro bi mooy virus bi mhm. ci feebar Covid 19 bi nag su fekkee daf la attaqué sa yaram day fa ay ay substance yu koy rey te loolu nag après day indi xeex maanaa benn xeex diggante li muy fabriqué ak virus bi bay dem ba mu am li ñuy li tubaab di wax orage cytokinique c'est-à-dire benn emballement organisme day sécrété ci lu ci bëree bëri mën naa dem ba rey virus bi ba mu jeex maintenant day dem ba finalement di attaqué sa organe yow ci sa bopp li waroon rey virus bi non seulement day rey virus bi mais day attaqué so so organes yi parmi organes yooyu day attaqué poumon bi mooy tax ñuy def détresse respiratoire day attaqué également rein bi mm-hmm. ak phénomène inflammatoire yi en plus doo et puis day yeneen feebar da ciy greffé ay bactéries ay infection bactérienne nga am fièvre nga am inflammation yu bëri mm-hmm. yooyu nag day yàq su fekkoon da nga amal feebar rein li tuuti lu desoon ci fonction yi da koy yàq su fekkoon amoo ko woon nag da koy détruire nga am feebar roño d' Légui léegi nu mu bëggoon tamit ngeen wax ci traitement bi parce que nee nañ tamit pour traiter nit ki nga xam dafa am fièvre roño dafay xaw a pas mënu nek mais da fay xaw compliqué parce que il faut nga bàyyi xel fièvre bi bu baax. waaw xam nga fièvre lu tax ñu war ci def attention wax naa léegi njëlbeen ci euh, ko am fièvre roño euh, da ngay vulnérable sa défense bëriwul. te xam nga li ngay wax yaram biy tang su fekkee ci yaa ngi défendre bu baax yaram day tàng. malheureusement nag comme ñu am feebar ñoom mënuñu def am défence yu baax seen yaram du tàng donc soo xaaree euh, pour détecter feebar bi ci yaram bu tàng mën nga xaar bu yàgg loolu mën nekk erreur. Mhm. mën nekk yeneen signe mën nga nekk da sonn comme euh, daaw da ngay da ngay remarqué ne euh, yaa ngi sonn vraiment ni ngay sonnee fan yàlla mën naa nekk da ngay amee juste biir buy daw benn jaare mën naa am da ngay wëccu léegi seer nañ sax am na ñoo xam ne dañuy xëy suñu lekkee du saf dara wala du seen dootuñu dara ci seen duñu am benn. benn benn odeur dootuñ ko sentir donc am na ñu bëri mu ñu nu muy feeñee donc moo tax euh, vraiment ñi am feebar roño war nañ ci bàyyi xel di vraiment di def un di di di leen surveiller vraiment de manière très rapprochée li ñu leen bu baax a baax bu jegee jegee mhm. bàyyi ci xel bu baax parce que mën nañ ko am fekk feebar bi du feeñe ni war a feeñe bu indi ay jafe-jafe donc loolu vraiment c'est c'est extrêmement important moo tax dañuy waxtaan ak comité bi ne leen bu leen xaar rek malade bi en fièvre wala mu dem bu muy am gis ne donc léegi-léegi ñun am yoo xam ne soo ko seetloo rek euh, dalay alerter surtout nag su fekkee dafa mas a nekk koo xam ne wala mu xamoon wala mu seeti woon ko amul feebar bi donc il faut ñu bàyyi ci xel. waaw ñu ngi naan tamit si traitement bi ñi am insuffisance rénale bu leen di traité Covid 19 bi en même temps ils sont sous dialyse 24 heures sur 24. waaw xam nga feebar roño dafa bëri façon wax naa bu aigu bi euh, Covid bi moo koy indi kooku fi fi mu hospitalisé foofu lañ koy traité waaye li su waree dialyse foofu lañ koy dialysé maintenant am na ñoo xam ne. dañoo am feebar rein tollaguñ dialyse ñooñu dañuy continuer seen garab comme niñ leen ni leen ko seen nefoloog bind beneen fànn bi mooy lu ñu dégg ci réseaux parce que su mu ne nga dara lii day faj lii day faj nañ ci bàyyi xel parce que soo jëlee loo xam ne waxtaanoo waxtaanoo ci ak sa docteur lu la mën a jural mooy mu yàq sa rein gën a yàq sa rein donc loolu waruñ jël dara te waxuñ leen beneen fànn bi mooy nañu moytu en plus mesures yi ñu wax nañu moytu transport yi nañu confiné wu suñ nekk ci kër gi c'est-à-dire jaxasoo ci biir kër gi di abalante ay kaas di abalante ay kuddu même suñ ñu demoon nañ benn même suñ bañoon benn bañ a lekk ci mbooloo sax ñu leen di tibbal moo gën mhm. parce que euh, famille bi war nañ ci bàyyi xel parce que famille bi un il faut ñu protéger ko mais ñoom aussi il faut ñu protéger wu li ñuy protéger ni ñu koy protéger mooy ñu ñu xaw mu suñu su beroo ñu bañ ko wax dara mhm. ñu bañ a moom même ñoom aussi suñu feebaree yëg yëgee dara ñu moytu ko loolu la am solo la maintenant ñi nga xam ne nag dañu am dañuy dialyse ñooñu et puis ñi nga xam ne amul nekk kuñ dialyse au lieu ngay dem hôpital da ngay woo sa néphrologue soo rendez-vous su jotee période bi da ngay woo sa néphrologue soo amee ay analyse nga waxtaan ci moom su la waxee ñëwal nga door a ñëw mais il faut pas ngay tëb rek jël transport bi dem mhm. ñi nga xam ne nag dañuy dialyse il faut ñu dem hôpital ñoom malheureusement il faut ñu dem hôpital trois fois par semaine ou deux fois ñooñu li ñu leen di conseillé suñ mënee regrouper jël oto seen bopp moo gën mhm. suñ ko mënul soo duggee balaa ngay dugg oto bi raxasul soo wàccee raxasul nga sol et puis vraiment il faut absolument que durant ce transport bi nga def masque soo ñëwee également balaa ngay dugg centre dialyse bi nga raxasu soo duggee centre dialyse bi di leen dox da ngeen di jubal seen lal toog amul jaxasoo foofu amul lal dara soo génnee aussi et puis ñuy jël seen température de temps en temps même si c'est pas suffisant mais mën na nekk indication maintenant su fekkee nag dañ la trans nga baal su fekkee dañ la transplanté nag ñu parce que yooyu aussi am nañ ci. ñooñu mhm. aussi mhm. dañu vraiment dañuy éviter soxla boo xam ne du farata daal il faut nga éviter ko. et puis ñu continuer lu ñu mënti yëg ak lu mu mënti doon bu ñu hésité war seen médecin seen nephrologue loolu solo la. Euh, te xam ngeen ne am si traitement dugg chloroquine ndax chloroquine mën nañ ko jox nga xam ne dafa am insuffisance rénale. mën nañ ko jox mais xam nga soo amee insuffisance rénale benn précaution lañ jël xam nga garab boo gis am na effet secondaire. Mhm. effet secondaire ñuy wax bon ay problème cardiaque la ñuy wax donc li ñuy digal soo amee instant souvent da ngay am problème cardiaque li ñu digal rek je pense ñu ngi koy def soo amé feebar euh, rein ñu war jox chloroquine bi il faut juste ñu defal électrocardiogramme ñu surveiller sa cœur bi et puis maintenant nak su fekkee da nga am ko ñu hospitaliser euh, à la kulli ñu lay defal ay analyses régulièrement ñu xol sa rein bi ndax. Covid bi yàq yokk na yàqute bi wala yokku ko. parce que am na paramètres yu bëri dañu ko war a surveiller. Mhm. en plus di la defal électrocardiogramme sinon suñ ko defee amul benn problème. jërëjëf professeur Faye Ka balaa ñu gën a xuus si waxtaan rek ñu dem fële si benn euh, élément ba xam ne Fatoumata sabane moo ko indil dafa amoon ay nit yoo xam ne dafa am ay nit fii si Sénégal nga xam ne dañu am ay entreprise yu ndaw nga xam ne dañuy liggéey dañuy jéem bokk si xeexu Covid 19 bi nag ñu ngi jéem a euh, defar ay produits pour euh, dimbali askan

comme ni ñu koy gisee consommer local la. donc si gel bi euh, dañu def ben produit boo xam ne bon xam naa euh, boo xam ne moo produit naturel yi euh, c'est l'un nu ñu koy waxee antiviral boo xam ne day gën a rey virus et naturellement si benn plante le jógee boo xam ne dañ koy jëlee finam donc dañu def yeneen produit yoo xam ne du juste alcool ak ndox la ñuy ñëw def non seulement des rey jàngoro

ndax comme tey jii dañ né ak mu mën démé tay euh nit ñi dañoo wara fagaru bala ñoo euh, lakalé ak yu demee noonu. buñ euh, corona virus jamono ji fo man di dem ci aduna bi problème masque moy posé wu. masque li tax muy posé wu parce que la demande est forte c'est sur des milliards mais aujourd'hui Chine rek mo am capacité répondre massivement ci loolu bo démé États-Unis Trump fi ñëpp nañu ko mu ne ko amul masque jëlal froid nga sàng sa kanam nga dem en France le même problème s'est posé ba ñuy xëccoo sa achat sur le marché international ay masque je pense que <clears throat> on a une réponse solide comme quoi la popeline bien étoffée popeline suisse bien étoffée doublée des respecter normes yi nga xam mo moo permettre ñu am masque fiable fiable à 90% waaw euh, professeur ñoo ko gisandoo tey ministre du commerce di Aminata Assome Diata dafa dem euh, visiter leen pour xool un peu lu ñuy def te euh, gën leen yokk doole ak jom si li ñuy def ngir jàppali askan bi si xeexum Covid 19 bi gis nga produit yoo man dafa am nga xam ne dama ko si jàpp mooy am na nga xam ne dafa ne dafa utiliser ay produits naturels ma sama sama laissé penser naan est-ce que tamit ñi nga xam ne dañoo am feebu roñon si produit yi ñu leen di jox pour ñu utiliser ndax loolu tamit waruñu si gëstu wala amul benn problème. en tout cas gel yi nga xam ne xam nga produit masque yi ñuy defar rek euh, gel yi ñuy defar manaat na baax na de mais xam nga processus loo gis mhm. dafa am processus mu mel ne garab boo gis ak loo gis dafa am processus parce que dafa am ay normes technique yu ñu war respecté mhm. mën na am naam am na efficacité mais pour vraiment ñu mën koo mën adopté ba ñu def ko à large échelle je pense que baax na et puis ñooñu am na ñu ko mën a validé mhm. am na ay ay ay kàngam yoo xam ne suñu leen joxe mën nañu ko validé je pense que am na solo maintenant benen zone ki bi porté masque nak mom la taxé dindi mesure barrière li ñuy wax. yoy lool moy danger bi parce que soo mu yaakaar ne def nga masque rek waro respecter mesure barrière yi wala parce que amna na ñoo xam da ngay gis ñu sol masque masque bi nek fi ci souf bakkan lool amul ben njëriñ wala nga sol masque chaque fois nga koy laal après ngay laal fenen lool amul ben njëriñ donc il faut aussi ñu xam ni ñuy soler masque bi. Nous, koy dindee soo ko dindee fan nga koy def et puis euh, voilà vraiment loolu war nañ ci bàyyi xel donc euh, li ñuy defar naam baax na peut-être parce que gis naa ñuy defar aspirateur c'est très bien loolu je pense qu'il faut favoriser euh, la technologie locale mais il faut quand même ñu valider il faut que le gouvernement bi créer benn processus de validation mmh. pour que vraiment suñ ko fekkee ñëpp xool nañ ne respecté normes yi pourquoi pas Mon peut être ça nous coûterait moins cher. ah Je li nga am solo le professeur lu wax lan Covid 19 nga ne ñu ngi dund ak bi. waaw déjà euh, la nous wax déjà au niveau de Dantec tënkoon nañ ko ci papier ay recommandation jox ko maladie et puis vous ñu personnel parce que personnel bi liggéey dialyse maladie dañoo exposé parce que man nit ki mën na am feebar bi. du da am benn signe yow nga koy faj ba jëlaale ko wala walaale ko service donc il faut que ñooñu qu'on trouve des moyens ñu protéger leen jox leen ay masque yu doy. c' est extrêmement important yooyu da tasoon nañ ko. Mhm. mais yemuñu foofu société sénégalaise de néphrologie toogoon nañ ñun ñëpp ñu toog bind ay recommandations pour vraiment soo amee feebar rein ak soo lépp lu ñu def yooyu yëpp document yi disponible mhm. maintenant nag li ñuy ñaax nit ñi mooy que feebar bi vraiment euh, feebar na boo xam ne bu sérieux la. nañ ci vraiment xam ñun nag Sénégal dañoo yàgg néewal rek dañoo mën a néewal la amul solo dana fi jóge nangam dana fi jóge ñun ñëpp la ñuy ñaan mais en attendant mhm. vraiment comportement yi ñuy wax nañ ci wéy respecter li ñuy wax parce que mbir mi nag du du yombee noonu de parce que même su demee c'est pas pour pour demee de euh, la fin des choses même parce que euh, suñ suñ demee tey ba finalement amatuñu ay cas yi mënul kenn mënul wax ne mën nañu am na benn cas bu nëbbatu woon kay il faut ñu demee ndànk respecte mesures barrières yi ça c'est extrêmement important et li may ñaan parce que li ñu wax nit ñi loolu c'est un comportement normal de tous les jours c'est-à-dire raxasu euh, di ngay ngay ngay moucher ci benn mouchoir sànni ko wéy di kooku xanaa sama mbokk séeréer joolaay rek loolu moom xanaa ku nekk war nga koo <laughs> loolu vraiment mm-hmm. damay ñaan yàlla suñ jógee ci li mbir mi dem ñu continuer ci mesures d'hygiène yooyu parce que lu am solo la mm-hmm. parce que foo toll naan fii kaas jox diw naan kaas et puis voilà ngay tisoon ci ko nit ñi xam nga lepp do lo loo day day surtout dul Covid man na indi beneen so mm-hmm. soo grippé wàll nit ki mm-hmm. su ngay xool ci kër yi su kenn amé grippe day wàll ñëpp parce que du jël benn précaution soo amee tuberculose même chose ngay saxati ko kaw nit ñi ainsi de suite ainsi donc loolu je pense c'est un comportement de tous les jours de vraiment war nañu war nañu yee lu bari ci ci ci luy ñëw jërëjëf jërëjëf professeur li ñu fi wax am na solo torop vraiment surtout pour ñi nga xam ne ñu ngi euh, dund ak feebaru ñoom professeur wax na seen waa kër surtout ñu ñuy dëkkal ñoom war nañ si yokk ñoom seen mesure barrière yër gën a aar ñi nga xam ne ñu ngi nekk si biir kër yi te am feebaru ñoom boobu euh, ñu ngi lay gërëm di la sant vraiment si sa teewaay di la ñaan nag nu euh, recevoir sunu beneen naataango di umu Kalsoum sal umu Kalsoum sal nag dañuy dem fekk ko fële si chapiteau bi ngir indi nu xibaaru bitim réew ak sénégalais si Allo Diaspora diaspora Oumou Kalsoum Sall na Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateur yëpp. Oumou Kalsoum Sall tey foo nu demal ak loonu indil. waa Ramata tey nag ci suñu euh, rubrique allo euh, diaspora dinañ dem euh, fekki ñaari doomu Sénégal yoo xam ne ni ñoo nga ca bitim réew kenn ki nag mooy Cheikh Mbacke Amar moom nag moo ngi ca Wuhan ci Chine xam ngeen nag ci jamono yële sax demoon nañ fa. ngir waxtaan ak moom tey jii ñu fas yéene fa delluwaat ndaxte dafa mel ni rek am na lu yees ci seen nekkin foofu daañu it fekki Pape Abdou Diagne moom moo nga ca Washington ca États-Unis moom it ñu waxtaan ak moom ndax jamono yi xam nañ ni euh, feebar bi foofu euh, daanaka rek chaque jour day évoluer bu baax a baax ñoom lañu ñu fas yéene waxtaanal tey jii euh, ci seen rubrique alo Diaspora Pape Abdou maa ngi lay nuyu. soxna Salimata maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñi ñu seetaan ñëpp. Uh-huh. Uh, Cheikh Mbacke Amar maa ngi lay nuyu di am mbégte bu baax uh, waxtaanaat ak yow. dafa ca wuwaan. maa lay delloo nuyu di nuyu sakkal yëpp alhamdulilah. voilà alors uh, Wuhan mu mel ni dëkk la boo xam ne ni siiw na ndax feebar bi ñuy waxtaanee fa la tàmbali woon ca fin décembre bële tey jii.

mais ci confinement bi c' est c' ndax man fii ma nekk nii amagul confinement daal amagul lële euh, buñ ko toog carrément ndax euh, fi ma am heure yi may génn muy su ma nekk am naa une heure temps am naa une ak guddi gi tamit am naa une heure trente pour génn mën a doxantu a jënd li ma soxla pour bisiwaat fi ma nekk te ci biir cité bi ma dëkk tamit foofu rek laa nekkagul loolu daal moo fi évolution Mm-hmm. loolu mu mel ni démb la tàmbali ginnaaw ñaari weer wala lu ko ëpp loo xam ne def ko ko ci am néeg génnoo demoo fenn démb ñu may la loolu ba nga njëkkee génn lan nga def. waaw man ne bi ma ko yëgee tamit bu ma xamee ne bu xëy naa war a génn ni ma ko daan defee comme d'habitude damaa julli bi ma jullee ba pare ma julli ñaari raaka ñu sante ko suñu borom génn rek sama tànk ci biti ko sama def sant yàlla rek génn doxantu. une heure de amoon pour dox wala tuuti daal yow nga nekk euh, ci Washington ci États-Unis euh, dégg nga léegi léegi Cheikh Mbacké Amar feebar bi fa la tàmbalee woon ci Wuhan waaye tey mu mel ni euh, macha allah ñoom fu mu nekk nii wàññeeku na foog bu baax a baax a baax a baax waaye mu mel ni dëkk bi nga nekk nag yow États-Unis quand dafa mel ni saa yi ñu xëyee nag day gën a metti foofu nga wax ñu rek situation bi foofu ci jamono yi lan la. dëgg dafa mel ni dafa mel ni fi mu nekk nii dañu xayee moo tax affaire bi numéro yi gën a bëri mais fii ñu nekk ci euh, Maryland euh, muy Washington DC ak Virginia ñetti état yu bokk ñu ngi toll ci boo euh, ko boolee dix mille six cent quatorze ñoom ñoo fi am virus bi et li nga xam ne jot na fi wàññeeku mi ngi toll ci deux cent vingt six nit ak kenn ñoo fi jot a rot ci ci ci virus bi. Mm-hmm. Uh, waaye li nga li ñu ci mën a wax rek mooy dëkk bi nekk na a état uh, d'urgence maanaam tere nañu nit ñi ñu ñu dox uh, dox bu amul solo li ñu mën a wax rek mooy nañu fexe dem jëndi lu ñu lekk wala ñu. Mm-hmm. Euh, Cheikh Mbacké Amar autorité yi nga xam ne ni ñoo ngi foofu ñoo ngi jokkoo ak yéen ba waa ambassadeur bi nekk ñoo jokkoo ak ñoom mu sa dakk li toujours di joko ak ñu perçoit bu chaque ngoon dinañu woo nemmeeku ñu tey jii rek di génn na benn boo xam te signé en son nom et au nom du gouvernement sénégalais di ñu témoigner de remerciement yi mhm. ñaari lu ko ëpp sax la laa doon wax léegi nga nek ci néeg tëju loo xam ni peut être tam moo def euh, lan nga bi jëm sama bopp nag mooy gën a mën a tuub gën borom Euh, bañ naa ko ba ñu confiné ba bisu jàmm tey jii dama décidé woon ni damay woor lépp ba léegi maa ngi ci koor lool laa jàngate suñu borom li dama ko gën delloo suñu borom gën ci xool àdduna ci àdduna bi tamit di wane rek suñu borom ni mu wanee bopp nit mënu matal lépp ndax àdduna bi ñu ngi doon ay bomb yu dal ak ay lu nekk dal suñu boroom jaaree ci li gën a tuuti nga xam ne mën àdduna bi kenn xamul fan lañ koy dige loolu daal jàngat yooyu ñett jàngat jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Mbacke Ama alors Pa Abdou euh, c'est vrai que euh, tey liaison bi xaw naa nakari tuuti waaye ma ñëwaat rek ci question bi ma doon laaj rek ma situation bi nga xam ne nii yéen a ngi koy dund foofu yéen communauté sénégalaise nan ngeen koy dundee. waaw comme comme ni nga ko waxee rek fii communauté sénégalaise bi dañuy organiser wu bu baax organiser wu nañu ñi ngi am nañu moyen de communication boo xam ne moom la ñuy utiliser maanaam lu mel ni rajo bi. Euh, rajo bi dañ ciy nekk chaque samedi ngoon def ci benn trois heures de temps waxtaan ci euh, invité ay docteur yee leen ci ci bi mm-hmm. euh, donc association sénégalais bi nekk fii am na si aussi benn société boo xam ne sénégalais diaspora yi ñoo ko créé ñu koy wax FONGAL fonds d' investissement fonds de garantie ak investissement am na am na États-Unis am na Europe am na foofu Sénégal mm-hmm. ñoom booloo nañ ñu ñu ngi wax ak seen membres yi nga xam ne ñooy investisseurs pour ñu dajaleen lu toll ci dix millions pour mën a fekk ci président de la république ci geste bu rafet boo mu def parce que dajalee xaalis pour dimbali Sénégalais yi ak mbooloo maanaam daal ñëpp ngi organisé wu au niveau de village pour que feebar bi ñu ñu mun ci mun ci génn ak jàmm waaye tamit képp koo xam ne parce que am na ñu bëri yoo xam ne liggéeyuñu liggéeyuñu donc ndax fi ñu fi ñu dem liggéey dañu neen dañu toog dañu toog à part ñoo nekk ci santé bi wala ñu nekk ci affaire jaay lekk bi ñu si def ñëpp dañuy toog donc ñu bëri liggéeyatuñu donc métti na métti na nga leen ñëpp muñal Sénégal muñal leen ñaanal leen mbir mi dem euh, parce que vraiment ñëpp a ngi santé jërëjëf jërëjëf Pape Abdou yow mi nekk foofu ci Washington jërëjëf tamit euh, Cheikh Mbacké Amar yow mi nekk foofu ci Wuhan voilà Ramata kon nag mu nekkoon Pape Abdou Diagne nekk foofu ca Washington ca États-Unis ak ki nga xam ne ni moo di Cheikh Mbacké Amar nekk ca Wuhan ci Chine ñëwaat nañ ci situation yi am foofu euh, ci dëkk yi ñu mel yi ñu nekk mu mel ni ca Wuhan moom fu mu ne nii euh, tàmbali nañu rek wàññi mesure yi nga xam ne ni jëloon nañ ko. waaye ca États-Unis moom fu mu ne ni situation bi day gën a métti rek saa yu ñu xëyee kon nag lii lañ leen andi doon tey jii ci seen rubrique allo diaspora di leen jox rendez-vous ëllëg incha allah. merci beaucoup Moukalsoum Sall gis nee na li ñu indil foofu sa waan ak Washington c'est vrai que fan a euh, ajaratu Fat Sakho mu ngi nu koy fàttali ne euh, Washington moom euh, situation métti na nu dalal sunu grande sœur bu baax bi Fatou. Mm-hmm. di di di wax tamit si li nga nu doon wax fan mm-hmm. que Chine c'est vrai que fu mu nekk nii situation mais xaw sta parce que ba mu génnee soi-disant entre guillemets si situation bi même bu mm-hmm. amee ay du bëri ma yaakaar ne xëy les li Cheikh Mbacké wax fii tuuti xëy na mooy euh, moy réponse bi moy nee na euh, xanaa feebar bi centre euh, ñu ko comme avant mm. mais léegi bu ñu génnee une heure de temps la ñuy génn duggaat amuñu amaguñu ba léegi liberté bi voilà li nga xamné war nañ ko uh-huh, sax uh-huh. c'est tout à fait normal hein, parce que fu ñu déclaré ne cas mi ngi ko ak yooyu rek nit ñi aussitôt day am euphorie parce que tej bi ñu leen tëj xaw na yàgg yàggaay boo xamante bi nit ñi dañuy bëgg am seen liberté mëna a naaj bi génn sibiti dox seen activité mais comme les professeurs doon wax sank euh, boudé né da nga nek euh, ci gox bo xamanteni bi feebar bi développé wu na fa munoo xam fan mo am ben niche bo xamanteni bi tey am na fu doomu jangoro bi euh, làqatu ba tay motax ci gox bobu da ngay gis dañuy nettoyer bu baax baax mbedd yi di def tout le temps pour désinfecter carrément parce que mhm. nak dafa xawa yag yàgg bi dirou ñetti weer euh, daanaka confiné nañ leen ko bon buñu bëggé bëggee génn si saa seet du yombé nonu moo il faut ñu jël précaution yi mais nak liñ ñu leen di xawa a euh, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que si de façon globale euh, Chine ubbi ay frontières mais Wuhan c'était un cas particulier bo xamanté bi fofu le feebar bi doré won et fofu mo ëppoon cas yi nga xamanté bi

82 cas environ la toll donc 2000 20 millions autant pour moi moment, moo nekkoon ci genn bi donc fi buñuy calculer 67 000 cas yi ci 82 millions yooyu euh, ci ci gox bobu la nekkoon donc pour ñu tel leen ubi du yomb donc ce que euh, Cheikh Mbacké disait tout à l'heure c'est tout à fait normal mais ci fan yi di dik nak du ñak comme niñu ñu yenen région yi dinañ ko ñu ubbee ndax li fa des ci cas yu active parce que liñ fa fajj euh, ci cas yi bari na aussi ci 67 000 60 4142 yi maanaam juróom benn fukki junni yi ak euh, ñeent euh, faj nañ leen ba nga xam ne li ñu dese si ay ka si ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett kese la donc foofu euh, vraiment am nañ fa espoir bu baax a baax. d'accord mhm. kon nu dem si situation monde bi xëy na tey moom am na nu mu fëkk a xëy na mu xaw a tane ak démb comme temps yi moom yëf yaa añ xaw a freiné même bu dee léeg-léeg feebar bi xaw a jóg tuuti. waaw par rapport ak hier. amna touti tous tan si nouveau cas yi hein, parce que nous avons am une évolution tay wacc nako lu tollu si fukki junni ak ñett mais téréwul ba cas yi dafa yokku parce que am nañ lu tollu 68 858 nouveaux cas Nous avons ben fukki junni ak ñett yu tek ñett témèr ak ak ñaar euh, am si ay nouveaux cas ça veut dire que bi sax bay taxaw parce que évolution bi mi ngi dem ba tay Europe mo fa gëna a un peu parce que euh, dafa yek tay bu baaxa baax États-Unis fa mu la nekk ba tay de façon générale mais bu ñuy xayma nombre de cas bi am ci aduna bi yëpp tollu na ci millions yu tek euh, ñeenti téméri junni. ak juróom-ñaar fukk ak juróom yu teg euh, juróomi juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn dese yi aussi gis nga mi ngi nii euh, boo moytuwul si cent mille yi la ñu jëm. Mm, doy na waar ñu si quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-dix-neuf cas euh, plutôt décès autant pour mois muy buñ koy xayma juróom-ñetti junni yu teg juróom-benn ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent bëri na ay bakkan yuy daanu. ndax feebar bi. mais kon naka la toujours États-Unis la 21 la yokku tey mais wàcc na tuuti par rapport ak euh, parce que démb quand même euh, li am ci euh, cas parce que nañ 30 000 li yokku par rapport ak démb néew na. tuuti loo xamante ni manqué na fukki junni donc xam nga mhm. kon li li demoon démb bëri na trop donc moo taxoon démb euh, ñuy titre ne US euh, euh, l'hécatombe parce que li fa daanu woon si bakkan aussi noonu la jege woon dayo mais tey gis nañ ne aussi ñi nga xamante bi am nañ fa feebar bi si jour bi wàññeeku na lu toll si juróom benn téeméer par rapport ak ñi fa faatu démb donc batay chiffre bi nga xamante bi moy mooy dese yi na bu baax si yokkute bi par rapport ak mais buñuy xayma li fa dans la journée na si fukki avez si autant pour moi yu tek ñenti euh, témèr ak lu tek donc ay qui rek lañuy lañuy léegi. tax ma naaj la la c'est vrai que États-Unis mom médecin yi sonn na tamit topoto il faut que ñu wut solution. waaw loolu lañ doon wax démb ne que néew yi moo leen jaaxal fi mu nekk nii comme tey nag dew ma États-Unis pour def fa focus euh, xaw ma yan disposition la jël tey pour euh, évidemment mouna a euh, suul seeni néew wala ñu lakk leen wala naka lañ koy def en tout cas ci New York moom posé woon na fa problème bu baax a ba ñuy xool ay place yoo xamante bi xëj

li yokku tey par rapport ak li demb euh 48 mom mo ci euh, def différence bi bu ñuy xoolee li fa dé tay euh, tollu nañu ci juróom-ñaari témèr ak juróom-ñaar fukk ak juróom ben donc euh, nit ñi dañu xaw a mm-hmm. parce que ñenti fan yi passé ñu doon gis né da fay wacc comme ak Italie mais tay dafa melni ni commencé na yéegaat mom moo tax nit ñi xaw nañu décourager touti quand mm-hmm. Italie bon fofu tamit ba tay kay dafa yéegaat euh, même li nga xamanté bi mom lañu farone di gis muy yokku nga xamanté bi contamination bi wàññeeku woon na dafa yéegaat tay li mu yéegaat toll na ci ñaari témèr yu teg donc il faut faire attention même si évidemment nombre de décès bi xawna wacc parce que li mu yokku demb par rapport ak li mu yokku tay décès yi euh, wacc na de 60 cas de 60 décès autant pour moi donc euh, Italie ba tey décès yi ñu koy juguler parce que xam nañ ne expert ak ay

donc euh, ça va. d'accord Nous lu dem ces situations en Afrique comptes, non Nous sommes en Afrique euh, bon moom situation tamit amélioré wul malheureusement euh, cas yi tey yokku na juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent par rapport ak li yokku woon démb tey daanaka téeméer tegu na si parce que yokku na lu toll si juróom-ñetti fukk ak juróom Si ñu xoolee tous les nouveaux cas il y a eu 789 ça veut dire def évolution wu 108 cas aujourd'hui euh, ça veut dire qu'il faut encore rester très, très vigilant. Afrique maîtriser l'évolution. évolution bi euh, peut-être Afrique du Sud comme ni koy si légui si pays yi nga xamante bi ñoom ñoo gëna sonu mi ngi ni mom ay décès wam malheureusement wat na euh, ben décès par rapport ak euh, démb 5 autant pour moi parce qu'ils étaient à 13. dégg 13 décès la ñu amoon ñu si 18 décès ah, Lol bon alors que ñom par ay ben bi dinañ ci toogoon ay jours yu bari donc ça veut dire qu'il y a un petit souci euh, tay li ñu yokk lesi ay cas tollu na ci juróom ñenti fuk ak euh, juróom ben euh, yokku na par rapport ak démb mais de deux cas rek nak de deux cas rek lañu ñu par rapport ak évolution bi. Algérie mi ngi mi ngi 149 cas la yokkule décès yi mi ngi moom na ba tay 205 décès la enregistré tay évolution par rapport.

malheureusement Maroc euh, amul ay décès yu bees déclaré ko en tout cas. Mhm. nouveau cas yi mi ngi nii toll na ci 101. lu xew fële sa CEDEAO kon. waaw buñu ñëwé ñëwee ñu xol euh, pays tay batay Burkina Faso mom mo ci juutu amna lu tollu ci ñetti téeméeri ak juroom ñett fuk ak euh, ñent tay mom limu yokulé taxuko bari lol mais buñu xolé nouveau cas yi tollu na ci ñaar fuk alors que demb euh, juróom fukk ak juróom-ñeenti cas la amone donc amna évolution wu benn cas rek bu ci yokku euh, décès yi tamit amna benen décès parce que mi ngi woon démb 18 tay mi ngi ci 19 décès kon ba tay Burkina mom mo jitu don pays bi nga xamanté bi ci CEDEAO bi mom la jangoro ji gëna laal et puis gëna sonal euh, ki ci top mom moy Ghana mom tamit dafa yek, ak 349 cas bon moom tamit bi mi fay sonalaate ba Côte d'Ivoire autant pour moi Ghana soog si topp. ok nous sommes les pays limitrophes Nous avons beaucoup de frontières avec frontière Sénégal. waaw euh, pays limitrophes comme comme niñ koy sont euh, Guinée euh, Mali Bissau Mauritanie ak Gambie évolution à Moufi. Guinée mais enregistré à tey Fukika avec ak Euh, mais ba tey mi ngi góorgóorlu amagul benn dese. d'accord euh, ñu dem léegi si conseil pratique lan nga nu indil te li nga xam ne euh, population maanaam askan wi war neen ko def ngir arsen seen bopp. waaw bo dañuy wax ne boo laalee fii boo defee lii lu si bari mun nga jàpp doomu jàngoro bi si sa loxo mun nga ko laal fenn mu daal dugg sa yaram mais dañuy sol ay yëre. dañuy nous ak nit ñi par yenn saa yi loolu ñuy bañ bi te autant ñi nga xamante bi doomu jàngoro bi daf koy si yenn surface yi euh, aussi ci yi mun na cee lang mbaa mu ci te bu ci bu ci ay tissu am fu mu donc na comme en général sax mun na guus wala mu loolu doomu bi na fa boo moytuwul que li nga xamante bi moom lay def ci surface bi nga xam ne nii comme verre bi mun na dem ba juróom-ñeenti fan sax nee nañu donc ça veut dire que yëre yi aussi il faut ñu bàyyi ci xel bu baax a baax euh, génn bi parfois mun ta ñàkk par yenn saa yi nga dem marché wala si espace yoo xamante bi da ngay riisaloog nit ki mun nga mun na la laal fenn te fu si nekk dafay développé wu te bu fa toogee maara day taali nga boole koog nag yeneen yére te peut-être jëliwoo matuwaay yi ci war pour setal ko kon ça pose problème donc même yëre yi aussi il faut ñu ciy bàyyi xel bu baax bu la leeree ne yow fii nga jóge tey wala fël nga dem sa xel mun na ñaaw ci ne xëj na yóbbaale nga doomu jàngoro bi sa kaw bala ngaa dugg sa biir njaboot wala ngay jël yëre yi di ko dugalaat ci yeneen yëre nga jël temps daal di ko raxas ba mu set mala nga fóot ko euh, ndox mu tàng yooyu sax am na ñoo xamante bi nee nañ jaru ko comme doomu jàngoro bi saabu da koy rey te ñun dañuy fóote saabu bu baax a baax

Abraham euh, mon ministre de la communication euh, nous sommes confinement nous avons dafa askan comme mon ministre ci mais suspendre deux mois ndax dafa ci ak ay xaritam mais réseaux sociaux euh, presse le président bi suspendre ses fonctions pendant deux mois donc euh, mu mel ni foofu caaxaane ñu mbir mi amul buur amul baadool <laughs> amul ministre amul keneen ku fa def lu dul noonu dañ lay teg ay daan euh, pour nga respecter mesures yi nga xamante bi moom la ñu tëral. nu euh, dem fële si organisation mondial de la santé maanaam kuréel bi nga xam ne moo boot wérgu yaram te loolu si indil. waaw OMS comme ni koy faral di defee daf ñuy jox ay tegtal jëmale ko ci feebar bi tey nag mu ñëw ci personnes yi nga xamante bi ñooñu. peut-être bu feebar bi duggé sen yaram rek dañuy développer forme grave forme grave bi moy fi nga xamanté bi dugg di yak ay organes ak affaire yoyu ñu né ñi nga xamanté bi dañu am maladie pulmonaire wala hypertension artérielle wala cancer bo xamanté bi mara day taali ci ñom ba paré wala diabète wala bok ay cardiopathie ñoñu bu leen feebar bi duggé doomu jangoro bi daf leen di gawa daan donc ay nit la ñoo xamante bi dañoo war a farlu lool si seen bopp moytu fépp foo xamante bi mun nañ fa daje ak doomu jàngoro bi d'accord kon nak euh, ñooñu dañu war def euh, lu attention si nit ñooñu ngir ñu baña euh, japp febe bobu di Covid 19 ni ko suñu gan gi waxoon sank professeur Fariga ñi nga xam dañu am febe roñon bi dañu wara moytu bu baax te sen entourage manam ni dekk ak ñom dimbali leen si aar leen ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax si seen teewaay ci sen émission Covid 19 tay nak dañuy def clin d'œil Fadel ak Solo ñom ñoy jappali ay Ajaratu fatsa yàqu si carte yi ngeen gis bés bu ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal guddi jàmm